mbokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala mi nga xam ne saa bu nit walla jaam bu mu mën a doon su jaaxlee ba ni ñu koy léeboo naan cëgg desatul ci guy néewut siiw lu dul ku ko woo rekk ba mu wuyu la mooy ki nga xam ne it lu nit mën a jëf ci ay rëcc-rëcc bu koy jéggalu mu di ko jéggal waaye moom daalit képp yam ca mooy ki nga xam ne moo am kàttanu wàcce xéewal rawatina nag xéewalug ndox waaye mooy buur bi nga xam ne moom rek moo moomat sëkk buur nguur gu way mën a yorit moo la caw tom sompal tuuti mu am foo tàmbalee foo yem mu jëlaat yëfam mooy ki nga xam ne moom rek moom la loxoom daj fépp mën a denc ñépp gannaaw bu ñu sant yàlla buur boobu subhanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñëpp tey balu xaq ñëpp tey dénk gannaaw bu ñu dénkee sunu bopp ñu gën a teg sunu tànk ci yoon wi jëm ci dëkk bi ñuy wax ragal yàlla nañu cay jaaree nag gannaaw bu jëfee ndigal yi suñu borom yi jàllee ak moytu tereem yi mooy tuub te dëkke jéggulu tuub ba noppi dëkke jébbul jéggulu ndax ragal yàlla sunu borom nee na ci alquran mbub mu waaj waaye di waaja di ko wallee di daan ragal yàlla moo ca gën waaye ragal yàlla it ci la ñuy gënantee bu ñuy wàññi ku gën ci nit ñi nañ seet ka gën a ragal yàlla mooy ka gën a teg tànkam fa ko yàlla teglu rek di dénk sunu bopp it ñu moytu fàtte li ñu fi yàlla indee woon ndax yàlla waxoon na ñun ci alquran ne na ngeen fexe bu leen adduna wor te di ko jaaree ci seytaane yàlla nu yàlla musal ci seytaane fan yi nu weesu rek ku yoroon ak jur muy gu gàtt wala gu digg dóomu wala gu gudd dem nga ba sa loxo dem gémmiñ te ab tiib yóbbuwu ko ca ndax nit ki ab dundam mën na ko bañ a jaaxal mën nay dem ci kër yi sës ca moom ñu di ko yàkkal wala mu kanaayal ba aw ñam fekk ko fa mu yor ca loxoom ne ko ca waa kër ga yoore génn dem waaye fekku ca nag jur goo xam ne yaa leen yeew te koo yeew dalay mu yeew la bi jaaxle amee nag te bokk yi jur googu ak ñun ñi leen yor yàlla dong moo ñu mën a boole dundal ndax seenu dund yàlla dong moo ko am te mooy taw ñax mi sax fépp loolu saa su nekk lu càggante bari bari war nañ koy gestu di ci waaru di ci yéem di ci joxaat suñu borom lam moom ñàkk taw nag yàllaa xam lu ko waral waaye am na ay sabab yoo xam ne tudd na ko ci alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ko ba mu leer naññ suñu demee ci alxuraan danañ ca fekk muy wax ne jamonoy nguurug firawna ba muy yónni Seydina Muusa ca ñoom dafa am lu ñu fàtte woon mooy leen yàlla indee woon ci kaw suuf si mooy jaamu ko fi te wéetal ko waaye bañ demee ba tàmbalee gis leneen lu bokkut ak loola yàlla daf leen a yónnee ndawam li ñuy wax ñàkk ñàkk jaarale ko ci luñ ji du sax wala bu saxee du ñor yeneen ci yàlla musal ñooña fañ ko jaaree woon fu yomb la dañ daan def bu naataange amee ñu sant Firawna ak gouvernement am su bekkoor amee ñu joxoñ Muusa Seydina Muusa ak ñam àndal na ñooñu ko teg gaaf gu ñor la goo xam ne baaxul moo tax suñu borom ne moo tax mu yónnee woon leen ñàkk goo xam ne la ca ëpp mi ngi ko jaarale woon ci mbay mi yàlla nañu ci yàlla musal noonu wa laqad axadna ala firawna bissinina ñàkk wa naqsin min alsamarat wa naqsin min alsamarat boo jiyee du sax wala bu saxee ba nga am yaakaar ne day ñor mu teggeeyu nee daf ko defoon laallahum yazakkaruun moom la kaa ngi daan tëgg naan kumta hum ya laallahum yazakkaruun hum yazakkaru yazakkaruun gannaaw dala gunu nag te ñu ngi jàng alxuraan di ko romba ko rombaat nañ moytu la daloon ñooñu dañu daal daf caa teg ne fa ida jaathum alxasanatu saa bu naataa ngi amee qaalu lana haadi lii daal benn état bi jàpp na ci waaye ñun ñi it kenn demul ñu des moo tax ñu am liñ am waaye wa in tusibhum sayiatun yatayaru bi muusa wa man maahu saa buñ demee ba bekkoor dugg nag ñu joxoñ muusa ne seen gaaf gee fi indi yatayaru ñu gaafal muusa wa man maahu te xamuñu ne ala innama taahiruhum inda allah gaaf gi leen di dal mi ngi bàyyi ko ci yàlla te ñoo ko faggu ci seeni loxo walakin aktharahum la yaalamuun am na fi muy waxee ci alquran loo xam ne ñun ak ñoom ñooñee ñoo ko bokk am na fi muy waxee ne awa lamma asabatkum musibatun qad asabtum mislayha qultum anna qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli cheyin qadir bu leen mbir dabatee mu mel ne dañ leen delloo seen weccet xoolal la ngeen joxe woon weccet lu mu doonoon bañ delloo leen weccet wa rek xool leen la ngeen joxe woon ba xam ka leen delloo weccet daa juum wala juumut junj nañ fi ba tey fàttalee te ne xaalis bu waay di jënde weccetam ngay jotaat waaye am na fi muy waxee ci alxuraan ne lu ngeen gis rek bu leen jaaxalee ba xamu leen mel ni pexe mu ngeen koy saafaraa xool leen seen bopp ndax yéen a ko liggéey wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum waaye am na feneen fi muy waxe ne lii tax lii di xew lépp yoxoy nit ñi kese la suñ demee ba suuf si mëntuta ñoral dara géej gi mëntuta am ay jën ak yañ ci daan génne ak njariñam xool leen yéen seeni yoxo ba xam set na wala déet zahara alfasaadu fi lbarri walbaxri bima kasabat aydi nnaas loolu nag saafara ko tewu ko waaye daa bëgg ñuy teggi suñ tànk fañ ko doon teg léeg-léeg li yudiqahum baad alladi amilu laallahum yarjiun bu ko defee yàlla moomu nag moo joxoñoon nit ñépp ne leen nañ jëm fa mu joxoñ rek te bañ koo teggi suñ ko teggiwut jàmm rek la ñuy dajeel fa aqim wajhaka liddiini alqayim min qabli an yati yowmun la maradda lahu min allah yowma idin yassaddacuun yàlla moomu nag boo demee ci alquran mel na mag firi woon na ko firi mu gàtt yàlla mooy kan nee na huwa allazi joo gis la cay topp yàlla danga ko man lu nit mën a torlu lott na ca danañ ci joxe ay misaal alladi jaala lakum al arda firasan wa samaa binaa yàlla mi nga xam ne moo tàllal suuf si mu ne tareet tàlli fu la neex dem loolu kenn fekk kenn fekk ko ci te ba mu koy defee abbut kenn benn jumtuwaay bu mu ko defaree dañuy ñëw rek fekk mu noppi wa anzala min alsamaai maan fa axraja bihi min althamarati rizqan lakum mooy tawit lu ngeen ji mu sax bokk yi taw bi kii mën a suñu borom dëgg ci nekk ku ci bay suukar mu ñor ku ci bay limon mu ñor ku ci bay kaani mu ñor ku ci bay yu leen gën a wex wala yu leen gën a neex lépp ay ñorandoo wa fi l ardi qitaaun mutajawirat di ko wax ci ba agsi ci tusqa bi maa in waaxidin wa nufadilu baadaha ala baadin fi l ukl yàlla moomu nag huwa alladi yursilu riyaaha nushuran am nañu jàng bushuran bayna yaday rahmati yàlla mooy yónnee ngelaw mag ñi daan takk naan ngelaw li day rooti bu jógee nii day rooti bu jëmee ne day andim ndox ay takk dong la woon te yàlla kenn du ko takk yàlla deesu ko takk deesu ko gàttandu deesu ko topp dañ koy ñaan toog di ko nekk xata ida aqallat saxaaban siqaalan suqnaahu li bal li baladin mayitin su ko defee na muy def ba liggéey ci am ndox nañ ko ko bàyyee fa axrajna bihi min kulli thamaraati laallakum tazakkaruun su ko defee nag bu tawee ba noppi taw daa am ñaari ñaar ñu muy dundal am na taw boo xam ne suuf si lay dundal nit ñi góob ko lekk ko waaye am na taw boo xam ne nag li muy dundal mooy ak ruux taw bi ruux di dundal moom la suñu borom di wax ne wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbihi yaxruju nabatuhu bi idni rabbihi wala yuxruju nabatahu bi idni rabbihi mooy kii ji mu sax mu toppatoo ko ba mu àgg day fekk bu koy lekk mu nar a rees ak jàmm day fekk mu bàyyee woon yàlla ne moom rek moo man mooy taw mooy saxal mooy ñoral yàlla na nu ko yàlla déggloo waaye am na fu muy waxe it ne allahu alladi yursilu riyaaha fa tuthiiru saxaaban fa yabsutuhu fi samaai kayfa yajaluhu kisafan xambaar yi ngay gis ci kaw asamaan seeg jabb yi yépp ak niir yi yàlla nee na nekku fa noonu rek moom moo ko waajal def ko noonee mu mel léeg-léeg mu mel ko bañ defee ne day taw mu teggi dem feneen léeg-léeg it muy taw sax li ci gën a yéeme gis nañ ko ba tey fii ci benn dëkk bu mag rek ab dëkk fii ci dëkk bi ñu nekk koo xam ne day taseeg yow ci tëli bi wataam tooy xëpp mu génn ci taw te yow yëgoo ne mi ngi doon taw wala nga ne ci àll bi di seen taw bi fële muy ñëw ba jub la yam fa yam tool diw kese wala mu ñëw ba sa tool yam fa du jàll tool diw loolu rek yàlla yàlla ko wéetee kenn fekk ko ca fa tara alwadqa yaxruju min xilaalihi fa ida asaaba bihi man yashaau min ibadihi ida hum yastabshiruun mu ne nag bokk na ci kéemaan yi tax ñu war a bàyyee yàlla lépp fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al arda bada mawtiha xool leen taw bi ni muy def suuf si bu bis bu dellusee rek fenn fu nekk day wert lool bu ci kanamee tuuti kenn ku nekk génne tóortóor ba mu meññoon daaw yii mboq yii xonq yii bula ak couleur yu bari yi nee na noonu mu ko mënee ci àll bi nag ba ngeen di ko gis nii ëllëg la koy raw noonu la ñuy dekkalaate ñun ñëpp ñu ne waat jomm fi kanamam mu àtte la fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al arda bada mawtiha inna dalika la muhyi al mawta wa huwa ala kulli cheyin qadir moo tax yàlla moomu lu ne da koy wutal ay sabab ñàkk a taw bokk na ca rek sàggane jaamu yàlla bokk na ca xol yu dox jëm ci xumaag wow koŋ ba duñ dégg waaraate duñ settantal kéemaani suñu borom yi duñ settantal kattanam ak coobareem ba far xol ya xumaag am na alfurxaan di wax ne baa kalla bal raana ala qulubi ma kaanu yaksibuun ba ca topp mooy dëgg-dëgg gëm yàlla dëgg ak ragal yàlla dëgg dëgg dëgg it dañ koo ñàkkal fayda ba kenn ku nekk mooy tànn la ko ca soob la ca des mu sànni rawatina nag wan gannaaw waxtu yu juróom ak génne asaka génn asaka moomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole na ko ci yi nga xam ne day fonk ko day tax naataange ba yaatu sax fi ñàkk ko fonk day tax bekkoor sax fi ba faw yan ci yàlla musal am na xadis bi muy wax ne li feeg nit ñi seetuñu seen i jëflante al mikyal wal misaan mooy jëflante rek bu mën a doon nee na feeg seetuñu ko kenn ku ci nekk di di ca dox lam ca war a dox bu ñu ko deful rek nañ séentu ñàkk gu leen di yoot goo xam ne amul kenn ku leen ko mën a tegal ku dul yàlla ñaareel ba it dana leen boole ak boroom doole joo xam ne mënu koo jaar ci suuf mënu koo jaar ci kaw fu ko neexee mën naa teg tànkam ci saw yoon gàllankoor la nee na yàlla dafa ñu koy nattoo daf mën nañoo nattoo borom doole jooju nga xam ne jaboot lay doon joo xam ne daal du jéggal mag du jéggal ndaw te déewul njaaxaanaay it teg ca ne bu ngeen génneetul asaka jërutul ngeen di séentu ab taw taw bi ngeen di gis akus néew bu leen yaakaar ne yéen a tax waaye ci barkeb jur gi ngeen koy amee bàyyi ma yàlla yi nga xam ne ñax kese lay mën a dundal lam yanqus qawmun almikyaala walmisaana illa uxidu bissinin wa shiddati lmathuna wa jawri sultaani alayhim sultaan sax la wax jawri sultaan buur bu jeng buur boo xam ne du tëddee njaaxaanaay ci njabootam ku ko neex mu fat la ku ko neex mu foddiku la waaye walam yamnacu zakata amwalihim illa municu lqatra min alsama walaw la albahaimu lam yumtaru waaye bokk na ci lii tax du tawit wan gannaaw gi nit ñi wan gannaaw tuub ak jégglu dëkk tuub ba noppi dëkk jégglu tuub jëkkay dégglu nag moom moo ci gën a rëy sax moom ana fu cay dugal nit ñi moo ñu dem ba rafet njort rek ne moom li muy def lépp baax na wala ki mu ko siqal daal nay def li mu bëgg a def rek ba ba ca kanam a kanam a kanam ndax àggagul fenn gone la day doxoog ndawam rek saa bu demee ba am at at yi mag ñi am mu wàññiku tuub yàlla jégal ko lu yomb la demewut noonu nag nit saa bu demee ba geg ci ci sàkkat wi wala miir bi ñu xam léegi mu xam ne foofu du aw yoon dafa war a wàññiku te bañ a geesuwaat te yokk ay jéegoom ndax bari na lu ko raw moom la ñu yàlla di wax ci alquran ne sayidna nuuhin alayhi salaam bokk na ci li gënoon a fis ci lam doon dox jàngal nit ñi tuub ak dëkke jégglu fa qultu staghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara su ngeen ko defee yursili sama aleykum midrara bakkoor dana bekkoor dana tegoo tàggoog yéen ba faw wa yumdidkum bi amwalin wa banin alal na gàññ ku takk soxna mën a jaboot kon boog njàmbat gi nit ñi jàmbat naan moom ba mu amee soxna ak léegi mën na fukki at te amagul njaboot nañ xool ba xam ak tuubam ak njégguloom noonu demee diggante ak boroomam waaye sayidna hurin alayhi salaam it yàlla mi ngi nett li ne am na bis mu taxawal waa dëkk bépp waa tund wa wax li wayumdikum bi amwaalin baniin wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaara waaye sayidna hurin alayhi salaam it waxoon na ko yaa qawmi istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi su ko defee yursili samaa alaykum midraaran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin rik tuub leen te dëkk jégglu su ko defee yàlla wàcce leen ay waame dotti waame yi ñu agsi di ñëw di ñoral ngeen di ko lekk muy rees su boobaa it kattan gi ngeen amagu si néew la ngeen cay lekk dana leen dundal ku leen song ngeen daan ko waaye ñàkk tuub ñàkk jégglu nag suñu boroom day dugal nit ci baabul jarima day dugal nit ci yàlla limaale ko ci mujrimu ne yàlla ñu ci yàlla musal yawaddul mujrimu law yaftadi yàlla ñu yàlla musal ci loola sayidna umar a ngi ni alayhi radiallahu anhu am na bis bekkoor am nit ñi jàq lool te moo fa nekkoon yaakaar ja ndax moo doonoon amirul muminin amirul muminin nag tekkiwut buurub jullit yi li muy tekki mooy ki leen di jox ndigal ki leen di jox ndigal lay tekki gannaaw bu yàlla yonent bi wéyee mu ne ay ci nañ dem defi la yonent bi daa def sallallahu alayhi wa sallam woote ci penc ma ak julli salaatul salaatul istisqa salaatul istisqa ci sunna yu mag yi la bokk mook julli korite ak tabaski ak xusu xusuuf ak kusuuf waaye ba mu sëlmalee weesuwu ca astaxfirullah astaxfirullah na dem leen ñu ne ko loolu gàtt na di mu ne doy na sëkk ne ko ñëpp wax rek waaye fa saasa ndax def na leen majaadiix masdax mooy lenn ci biddiw yi nga xam ne moom la cedd yu jëkk ya daan wax ne mooy taw mu fekk leen ca lañ xam rek ne leen majaadiix yi majdax ba ngeen di wax majaadiix ya ay moroomam astaxfirullah mooy puso wala rab ga koy bët ndox mi xel kon boog nañ tuub tey sàkk sarax tey baloon tey àq bii sëriñ bi digle woon ci ayu bis bi yàlla nangu na ñaan ka moom nag yàlla la doon ñaan yàllaa nangu ñaan ka yàlla na gën a jëm kanam moo tax sayidina ali radiallahu anhu nee na woon balaa bu ngeen gis mu wàcc ci kaw suuf si bàkkaar a ko waral bàkkaar nag waxuñu di ko lim waaye bañ a fonk istigfaar kese bàkkaar la ndax yàlla ni mu toll xel mënu koo xalaat waaye ku sañoon ku ne sa kër léeg-léeg mu nuyu si la léeg-léeg it mu wane ne mu won la ne la maa ngi sa kër xam naa li nga may li nga ma defal ci sa kër gi moo tax istixfar li muy wan suñu borom xam na lépp waaye sabab la ci ne ko yow kat xam naa ne li ma war sama diggante yow defuma ci dara maa ngi tuub di jéggalu su ko defee ku ne bu tuubalee suñu borom jéggalu moroomam yéen mën ne suñu borom mën naa wàcc moo tax sayidna ali ne woon balaa boo gis mocc ci kaw suuf si bàkkaar a ko waral te bàkkaar nag tuub moo koy far ni ndox di faye sawara kon boo gannaaw suñu bàkkaar dafa bari liñ gàttañ lu suñu digganteeg suñu borom ne gàññ gàññaaral suñuy gaaf ne gàññ li fi sës rek mooy ñaan yàlla mu jéggal nu te wéy dañu dottil am ndox moo xam ne yàlla bu mu doon bàqub kenn ci noonu ku gis dëgg-dëgg gëm yàlla ak jaamu yàlla ci boppam ak ixlaas dafa mel ne boo gaaree woon ab biis bëgg bëgg ku ko am dugg ca dana yeex a fees waaye munkaraat it na gàññ gàññaaral waaye julli mii nga xam ne moo ñu dajale fii moom nit ñi tegatuñ ko fa mu nekkoon dañu naan saa bu ñu ko mënee def ko rek bu ñu ko mënut bàyyi yàlla baax na yàlla ba mu baaxee yàgg na azaka it am na ñoo xam ne nay moo leen ko tey di génne ndax ak ñàkk lañ koy jàpp ci seen alal saa su nañu fàttali ko war naa am mbooloo moo xam ne mii dañuy wër réew mi ba bitim réew di ja wax nit ñi asaka mooy lan julli moom min nañ ko waaye asaka lañ xamagut dëgg-dëgg mooy lan ak lu muy jariñ am na ñooñ gëstu wane na ko ci na ñoom seen alal buñ ko mënta ñàkk génne asaka it bu dee mbay la dañ koy jaay duñ ko xottee ndobinu duñ ko jënde ordonnance waaye dañ ko fay teg di ko jëndale jur ga ripaas wala boog ñenn ñi ña ko doon bay lañ koy jox te bokk yi koo xam ne yaa yor ab dundam bu faatoo yow lañ koy laaj waroo ko jox asaka lu yaatu la nag waaye seytaane ngi fi yaatu lool te taxul muy dëgg ba tey waaye it ëpplante ci alal it ku ne di woon moroomam nu mu toll it mi ngi ne gàñ di romb say moroomi jaam di leen wan ne li ma am liggéeyee ma ko may wala ma leen ëpp pexe ma leen gën a muus mi ngi ne gàññ waaye tooñante gi ne suñu diggante it gàññ waaye kañaanante gi ak bañante gi ak dogante gi ak wanante gi gannaaw it mi ngi ne gàññ kon boog bu jamono demee ba àgg ci balaa taw faaw ñu daje ci pénc ma dajalu ci pénc yi kenn ku nekk indi la man ñu tuub buñ ko dëkkee woon jàmm rek ay am walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamai wal ard walakin kadabu fa axasnaahum bi ma kaanu yaksiboon am na beneen aaya bi muy wax daraba allahu mathalan qaryatan kaanat aminatan mutma'innatan yaatiha rizquha ragadan min kulli makaanin ab dëkk ngi woon nii boo xam ne lépp fa nekkoon la fa ba fa lekk ba fa lépp nekkee dañoo tàmbalee gutoo na mooy yàlla tàmbalee guñu woon a fàtte yàlla ci tuub mu naat lool ñëpp wutali ko waaye bañ demee ba tàmbalee fëgg ay përëg naan lu ñu am ñoo ko wutal suñu bopp fa kafarat bi an'ami llahi fa adaqaha allahu libaas alju'i wal xawfi bima kaanu yasna'un yal nañu yàlla defal dégg ak topp te yàggalal ñu fi suñu kilifa yi nga xam ne suñ demee ba xam ne njàqare tiitaange jib na yëg gañ koy yëg sax lu baax la ndax bi ñu ko yëgee ba ne nañ torox loolu suñu boroom ñaan ko yàlla yàgg na leen caa sagal sagal yàlla na gën a sax tañ bañ ko bàyyi ku dem xam na lam def mook yàlla ñoo xam yàlla sutural na ko na teggi tànkam bala ko laax di lakk di lakk di lakkaale koo xam ne buggu sa lekk laax sax far waaye ku dem mënees na koo tàmbali buñ génnee ci jumaa ji na jox loxo moroomam rek moo xam mu xam ko moo xam mu xamu ko ndax léeg-léeg nit tooñ ñëpp te yëgul ne tooñ na ñëpp ndax merom suñu borom bu doon wàcc du bàyyi kenn misaal mi bari na Seydina Moussa alayhi salaam laaj na ko yàlla waaye fa mu jeexee daal mooy lu tax nga rey ñëpp mu ne ko xawma ko tooñ ak ku tooñut ñoo bokk na ci kaw suuf si rek li bokk na ci it buñ gisee ku tooñ duñ ko ne bàyyi li ngay def lu'ina alladina kafaru min bani israila ala israila ala lisani daawuda wa isa bni maryama dalika bima asaw wa kanu yaxtaduun kanu la yatanahuna an munkarin faalu la bi'sa ma kanu yafaalu يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين